mbokki jullit di leen bégalee la cheikh ibrahim ñas bégaleyoon boppam naan hani an li ibrahima laaxa hilaaluhu hilaalum bada linnadirina jamaaluhu hilaalu rabiin fiihi jaa muhammadun fa tamma lana albushra wa amma nawaaluhu mbokk yi ñi ngi am mbégte kontaante di leen bégalee xasida mawlaana cheikh al islam boobu nga xam ne ci la la boppam ci ganek àdduna yontu yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam mi nga xam ne mooy munqidul bashariya gàmmu Medina Baye international muy am lundi le 18 octobre 2021 fukki fan ak ñaar ci weeru rabiul awal 1443 ñu koy amalee ci Medina Baye programme bi dana leen amal seen mawlid chaque jour bu ñu jullee gee ba pare ngeen ànd seeg cheikh Mouhamadul Amin cheikh Ibrahim Niass Baba ci teewaayu mbooleem kilifay Medina yi danañ amal ay série conférence symposium international ñu ci amal ay panel yu kawe yu am solo yoo xam ne ay professeurs internationaux ñoo ciy daje muy am le 15 ak le 16 octobre 2021 bu ñu fàttee ahadis yi nga xam al imaamul akbar maolana cheikh ahmed a tidiani cheikh sidi ali Cissé dana ko amal ci jumaa ji saa ñu jullee tisbaar ba noppi tafsirul qur'aani karim ñu ànd see fadilatul xalifa cheikh mouhamadul maahi journée boo xam ne alquds lañ ko jagleel saalisul xaramayni wa awula qiblatil muslimin ñu ngi koy amal ngir wane sunu jàppale ak suñu solidarité ñeel waa Palestine cérémonie officielle bi danañ ko amale ci Karougan danañ amal tam gala culturel ci ay musabaqaat shi'riya waaye tam ay xutab yoo xam ne ñu koy taxawee mooy commission culturelle guddi gàmm gi danañ ko amal lundi 18 octobre 2021 ki koy animé di cheikh Mouhamadou Amine cheikh Ibrahima Niass borom gàmmu gi ñu gën ko xam ci Baaba danañ ci teg message u xalifa bi nga xam ne dana ko joxe at mu jot ñeel jullit ñi waaye ñeel taalibe Baay waaye ñeel insaniyatu mbokk yi gàmmu Medina bàyyi 2021 ak ay programme yu riche ñu ngi ñaanal ñëpp gàmmu jàmm asalaamu aleykum wa taala wa barakaatuhu